xarit yi suivre solution TV mbégte la ñuy am ñëwaat comme nuñ ko baaxoo di defee rek àllarba bu jot euh, fii ci solution TV dalal fii gan goo xamante ne nii daanaka rek képp ku ñu ko présenté rek du réer fenn ndax ci la muy yëngu euh, dafa nekk lu intéressant euh, intéressé sénégalais yi surtout rawatina nag waa diaspora bi nga xam ne saay su nekk rek dañuy bàyyi xel solution TV ginnaaw bi ñu nuyoo waa Cees benn dëkk ñaari gaar benn aéroport ñaanal leen di mu Serigne Abdou Lahat Mbacké yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu moo ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xaalif yi ci biir réew mi yëpp Aïcha mi ngi noonu tey nag dañ fi dalal benn influenceur mën naa wax daanaka ni influencé ndaw ñeek mag ñeek ñëpp ndax dem na ba influencé papaam ci lu mu nekkul woon fexe ba attiré ko ci mbir mi daañu ci ñëw ci kanam tuuti fas ne ko waxtaanee moom nag Pa Assane Gueye lébu gi lay wuyoo ko mu nuyoo ko internet yi ngi lay di nuyu mhm. sénégalais yi. nuyu internet yi nga xam ne ñun ngi seetaan di nuyu samay abonné ak waa Kër Mbaye Fall gi nga xam ne fa laa jóge mhm. di nuyu samay parents sama papa ak sama yaay ak sama famille. Mhm. di rafetlu invitation bi. waaw paasan nag euh, sénégalais yi bu ñu la xamee peut-être ci TikTok la mais balaa ñuy ñëw ci loolu bëggoon nañu xam réellement paasan moom mis à part TikTok bi ban activité lay def ak si lan la nekk si lan lay yëngatu peut-être ñi la xam. xam yow yaay kan euh, boo ñu manee présenter sa bopp tuuti. waaw Pa Assane Gueye mm. di représenter nag sama sama communauté. Mm. vraiment sama ethnie di euh, Lébu bi macha allah. Mm. man nag à part TikTok bi magasinier la. Mm-hmm. nag euh, am naa sama master 2 en transport et logistique depuis 2022. Mm-hmm. mu ngi noonu teewul nag maa ngi ci réseau yi nag mm-hmm. samay plateformes ce sont des plateformes nekk dañ ko monétiser muy moo xam muy TikTok bi nga xam ne bi naa ko France ba xam ba ci euh, chaîne YouTube bi nga xam ne moom jot naa ko yore. Mm-hmm. maa ngi ci lépp nag parfois damay ne ci ay business yoo xam ne damay def ay. jënd ak jaay maa ngi ci lépp lépp loo xam ne dafay dégg naa ku nekk ci lépp bu yàggee mu ne ci erreur de. non mais damay contrôlé wu nag. Ah. damay damay xam nga boo tee dal moom. vraiment am na yu bëri yoo xam ne nii. Mm. mën nga cee bañ a dugg quoi. Mm-hmm. waaw ci lu logique. Mm. ci lépp loo xam ne ni suñu borom santaane na ko. ci mm-hmm. loolu laa nekk. Mm-hmm. parfois damay jaay équipement sportif. jënd ak jaay et tout. dem naa nag ba temps bi mayatuma ko sama frère moom laa mujjee bàyyi ak affaire yi. moom mu ci business mu ngi noonu. d'accord dañuy ñëw ci sport boobu sax parce que man dama lay suivre ci TikTok bi mais li si ëpp dama lay faral di gis ngay yëngu ci wàllum sport rawatina nag football. parfois ñi intéressé wul ci match yi sax bu match amee bu ñu jaaxee ci sa page sax dañuy xam réellement kan moo doon football tey ci championnat yee kii ni mel lan moo lay inspiré ba à chaque fois maa ngi lay gis yaa ngi dugal ay vidéo yoo xamante ne ni ay match la yoo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy suivre muy amee fële ca Europe d'abord man sportif la mhm. doon naa football nekkoon ci ab de formation di wëyal mhm. léegi nag li kale sama football mooy dama amoon ay damm-damm oh ma arrêté waaye c'est ça ma arrêté football bi mhm. puisque man sama famille ñëpp ay karaté kaa lañ si dañoo judd sama fekk sama papa di karaté sama grand frère ma ne léegi nag naa déplacé dem ci karaté bi mu duggaat ci karaté bi di compétir championnat Sénégal di wëyal ñu ne booy bi dafa am avenir booy la ñu yeneen blessure yoo xam ne ni moo ma empêché aussi ma continuer karaté bi doon naa ko entraîner. su ma la déggee dafa mel ni cat moo. moom nga mën a wax. on peut moo la jàpp ba tax avancé aussi. waaye c' est ça man moom de nature je suis comme ça mm. dugg rek. Mm. dafay dafay am coow malgré man du ma nitu coow. Mm. man suis quelqu'un boo xam dama calme. sama wax bëriwul mais ci lépp loo xam ne dama cee teg sama loxo rek après dafay bëri coow. dafay bëri coow waaye c' est ça ay coow yi demee naan. waaw dañuy wax ci booy bi booy bi peut ci talent bi et jamono bi may football ba ma ba ma ci toll aussi ak ba may karaté aussi dak dama yoroon taay yu karatéka mooy comité bi mhm. dama yoroon taay boobu su ma demee compétition aussi yeneen coach yi loolu lañ daan wax. Mhm. après nag ma dem blessure yi ma affaire yëngatuwaat mooy ci sévi bi yëngatuwaat encore une fois ma ne nag naa gën a concentré wu ci jàng bi. Mhm. nag sport rek du àdduna. te vraiment dañ ma docteur bi ma doon faj dafa ma doon wax ne ma da ngay ñu amputé sa tànk ci boo ko ne waa blessure bu fi bamtuwaat quoi. waaw loolu te loolu moom football jaru ko moom. noonu ma ne nag naa yore jabar ak doom et pour mën a gérer sama famille. il nag ma concentré aussi jàng bi. ba ni yàlla def ma jot samay diplôme licence master et tout. macha allah waaye c'est ça. mais taxul nga bàyyi football quand parce que gis naa la tout le temps bu Sénégal di football da ngay déplacé wu dem des fois damay gis nga nekk ak coach Aliou Cissé bi nga xamante ne nii fan yi moom ni ñu koy critiqué bari na lool. Mm, ban relation nga am ak euh, équipe nationale bu Sénégal. waaw équipe nationale du Sénégal. Mm-hmm. joueurs yi seen performance mm-hmm. moom laay moom laay moom lay leeral sénégalais yi bu ñu ma xamee ci Sadio Mané lañ ma xamee wala soit ci Gana Gueye Ismaïla Sarr. Mm-hmm. nag euh, bu njëkkaan télévision yi en général ñoom ñoo doon tek performance joueurs yi soit ay infosport mhm. et tout te ñoom li ci ëppoon joueurs yu mag a mag yi lañ daan teg wala joueurs yi nga xam ne ñu ngi nekk foofu France mhm. léegi nag sénégalais yi nag bëgg nañ xam performance yu yenn joueurs yu ci mel ni Sadio Mané mhm. li nga xam ne ñu ngi koy def foofee ah, ci Europe ngi def lu am solo nag bi ci c'est ça mm. Mm. te suñu télé yi ñoom sport bi dese nañ ko woon jox gëdd quoi mm. mu ngi noonu loolu nag motivé woon na ma à ce que ne léegi naa dugg ci milieu bi euh, puisque ñu ci wax bëriwul puisque maa ngi seetaan Sadio Mané di seetaan Gana Gueye performance bu ñu def ma ñëw toog jël sama temps def ci vidéo wax sénégalais Sadio lii la def ñaata bi la dugal et ci noonu la ma gars yi ràññee aussi tamit coupe d'Afrique bi si laa gën a fës coupe d'Afrique bi ñu jël waaw gis naa la waaye ah c'est ça boobu moom dama see demoon ba mujj gi dama jiit tak waaye c'est ça mm-hmm, mm-hmm. mu ngi noonu nag euh, Ismaïla Sarr mm-hmm. dafa blessé woon clubam bii di Watford xam nga tubaab bi dañoo saay saay waaw te blessure boobu mënu koon empêcher mu football coupe d'Afrique bi yëpp léegi waa Watford ne Ismaël dafa war a forfait ci coupe d'Afrique dafa war a forfait waaw déggoon naa yooyu. waaye c'est ça ma génn interpellé leen fédération bi gis nga bu ngeen seetaanee ba Ismaël rëcc leen. Mm. coupe d'Afrique mën ngeen ko ñàkk ma ne leen Ismaël mën na forfait ci match de poule mm. mais li des ci compétition bi li ko dalee quart de finale ba final mën nañoo jàppale. Mm. kàddu googu nag gars yi partagé ko et tout. Mhm. léegi nag sur le coup fédération sénégalaise de football. dégg message baawe si saa jéem a dégganteeg waa Watford ne leen nañ indil Ismaïla Sarr. Mhm. ñu indi leen Ismaïla su ma juumul Espagne lañ ko yóbbu mu def fa ay traitement. Mhm. c' vrai match de poule joué ko. mais ci dernier carré bi ma doon wax. mu li ko dalee demi finale ba finale. finale football na def pas décisif jàppale ñu ci li nga mm. xam ne mooy Coupe d' Afrique des Nations ba ñu jël ko. waaye c' est ça ak yeneen nouvelles yoo xam ne jotoon naa ko indi ci Coupe d' Afrique bi. d' accord naka nga jàngatee Sadio Mané sortie bi mu def après match Sénégal euh, RDC euh, je pense RDC Congo la. Mm-hmm. ñu match niil moom nag génn na def cri de cœur am wax ne euh, classement bi peut-être coach bi di def mooy tax parfois qualité bi am ci équipe bi ba yenn ndam yi. yi ñu war a am sax duñ ko am. waaw Sadio dafa génn ci vestiaire yi. Mhm. Euh, cri de cœur la def et tout. Mhm. peut-être euh, dafa gisoon équipe bi ni mu doon doxalee neex ko en tant que grand joueur mu nekk cadre ci équipe bi. Mhm. mu ne système bi dañ ko war a changer nag baamtu nañ ko maintes fois mais après du am réussite. te àdduna nag noonu la ci lépp loo ne di essayer di essayer te temps bi du la ko may football dafa gaaw mm-hmm. waaye c'est ça boo fa nekkee di bamtuwaat ci benn mbir boo xam ne doo ci am réussite keneen mu ngi am ci réussite yeneen boo xoolee Maroc mu ngi évoluer Côte d'Ivoire et tout mm-hmm. moom peut du bëgg a gis loolu mu gis ay Maroc di évoluer di avancer Sénégal di stagné wu ci benn jeu boo xam ne nii kenn xamul waaye c'est ça mm-hmm. instant yi ba léegi kenn xamul identité football Aliou Cissé kenn xamul ban football la ñu mën a ràññee te Sénégal ah, mais gars yi nee nañ du mën xew it indi nañu Coupe d'Afrique euh, fexe na ba yóbbu ñu euh, Coupe du monde trois fois su ma juumal xaw ma deux fois euh, te en plus moo ngi si yoon bi certes bu fekkee keroog nul nañ Mauritanie bi fexe nañ ba dóor 1-0 loolu tamit te nit ñi teewul ba léegi ñi ngi koy critiquer. waaw mais noonu la àdduna gis nga boo bëggee évoluer xam nga ñun dañoo bëgg a teg suñu bopp suñu niveau. Hmm. niveau bu kawe kawe ay côté France Angleterre niveau boobu boo bëggee toll. Hmm. moyen de détail rek. Mm. boo ko bàyyee rek mën na la pénaliser. Ah, pourtant joueurs yi ñoom ñooy toj championnat yooyu ngay tudd. man damay wax ne donc souvent ci choix coach yi si la. Mm. boo xoolee euh, effectif bi équipe nationale Sénégal am. Mm. man dama jàpp bu ñu amoon beneen coach boo xam ne ni gën na tactique beneen coach boo xam ne am na expérience ci wàllu coaching aay na trop. non mën nañoo tegle ay coupe d' Afrique coupe d' Afrique. gis nga ñun Sénégal dañoo teel doyal. boo xoolee Égypte bi am ñoom bañ ko amee bañ dañoo tegle trois fois coupe d' Afrique. mais loolu Youssou Ndour ñu ko jàngal nag bu fekkee ni chaque jour bu fi yemoon sax rek mu neex nag. loolu moom du tax nit. léegi ba mu koy way c' était boo bëggee raw say mas. Mm-hmm. am na détails yoo xam ne da nga koy teggee à côté bul teel a doyal. Mm-hmm. boo mënee sa équipe. mënoo équipe bi ngay joué. Mm-hmm. score allemand nga indil dóor ko ay set bu ko defee ñeneen dañ lay ragal. même koo xam ne yéen a tolloo niveau sax mën na la ragal te football boo jàkkaarloo 11 équipe adverse bi nga jàkkaarloo bu amee as tuut ci ragal rek yow mën nga koo gagné malgré boo leen tollee niveau mhm. te Sénégal fa la war a toll mhm. ku am Sadio Mané mhm. am euh, Nicolas Jackson actuellement ci africain yi valeur marchande moo gën a kawe moo Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr jël na sixième position Nicolas Jackson jël première position Idrissa Gana Gueye di toj Angleterre Cheikhou Kouyaté Pape Alassane Gueye di titulaire euh, Olympique de Marseille malgré ces boo ko amee yow da nga ciy profito balaa yooyu di weesu pour nga defaraat benn effectif bu gën a diis day metti kon profitool nga jël ci li ñu ci war a jël ba pare bu ko defee booy nekkaatee ci defaraat day fekk yow jël nga li nga waroon jël mais Aliou ba léegi kenn xamagul ban système de jeu la war a indi identité Sénégal maanaam Sénégal la ban football lañ ko xàmmee boo ne Barça da nga naan tiki taka boo ne Real da nga naan jeu essayant yi comprendre boo ne Guardiola aussi da nga naan tiki taka ku ne di nga xàmmee kii lan mooy style de jeu mhm. mais équipe nationale Sénégal kenn mënu ko xam tey dañuy teg 3 5 2 tey 3 4 3. suba ñu tegaat moom léegi miin nañ ko trop waaye c'est ça mu ngi noonu te loolu. <laughs> jëmalul équipe bi kanam. Mm. malgré Sadio man su ma sañoon mënoon na wéetoog Aliou waxtaan ak moom. Mm-hmm. mais li mu wax réalité la lu am la système bi dañ ko war a changer te li waral sax muy teg 3 5 2 dinaa ci ñëw nag sénégalais yi 352 bi muy teg noonu te mu indil ñu problème. mooy que dafa sélectionné ab listam te tegu ci benn latéraux de métier. Mm. mooy ñu ci flanc yi latéral droite. Mm. ak latéral gauche indiwu ci benn ay défenseur central la indi. Mm. te équipe pour mu équilibrer poste bu ne da fa war a indi ab joueur. léegi nag boo amul ay latéraux de métier doo mën a teg 4-3-3. 4-3-3 il faut nga am ay latéraux. loolu moo ko obligé mu teg. 3 5 2 teg 3 défenseurs ñaari piston te piston yi sax ni mu leen tegee du normal Ismaïla Sarr du piston bu avancé du mën a def repli défensif mm, d'accord mi ngi noonu ndax sénégalais yi nag am na ñuy commencé di ngurum ngurumee ci suuf ne Aliou dafa war a dem yow tu es pour compte mu toog wala man nag bu ma ko doon conseillé comme li Diomansy Kamara wax ba mu jëlee Coupe d'Afrique mm. ba weesu coupe du monde bi si la waroon a arrêté démission. mais eh pourtant peut-être yéene ma sori rek. mu bëgg yóbbu yeggale gars mais mais mais tubaab bi loolu lañ ñu rawee ñoom bu ñu xasee ba accomplir benn mbir. mission rek dañuy bàyyi rocceeku bu ko defee yow di nga xalaat sa njaboot. Hmm. c'est ça nag Sénégal ñun noonu lañu yàlla bindee. Hmm. boo ñu def na defal fukk. ëllëg boo ñëwee erreur bu ndaw boo ko defee lépp dañ la koy sëpp dañuy fàtte lépp. Hmm. léegi boo demee ba xam loolu. yow tegul côté. nga may sa yeneen frère mm. ñoom gis nañ fi ay Habib Bey mm. ay euh, Youssouf Dabo ay euh, Omar Daf et tant d' autres coachs yoo xam ne ñu ngi def lu am solo mm-hmm. niveau international mm-hmm. nga may leen ñoom ñu continuer aventure bi après mm-hmm. yow doo am problème ak benn sénégalais d' accord mu ngi noonu Aliou peut être yéene ma ma sori rek macha allah en tout cas jàmbaar la ma sénégalais moom daa gaaw a euh, critiquer nit bon yàlla baax na yàlla na leen jàll suñu borom bi defal yeneen i ndam ci barke léegi nag dañuy dem peut être paasan fi ñu ko gën a ràññeewee muy waa euh, san Pastef pa <laughs> euh, Assane ak waa Pastef ñun bëgg nañu comprendre yow membre nga ci biir parti bi wala simple militant nga wala euh, sama yeneen gars yi ni ñu mel ci waa ji rek bëgg ko lool ba fu ma wootee ñu dem wuy ji bëgg nañu comprendre tuuti daal yow ak sa diggante ak waa Pastef. man nag bu ma waxee dëgg du ma militant Pastef. Ah aw ma carte membre waaye c'est ça. te yow lu ñu xew la dem. <laughs> non mais parfois <laughs> mu ngi noonu sama amour ci Sénégal dina ma pousser à ce que. <laughs> parfois mooy def yenn mbir sax du ma ko tey. Mm. mu ngi noonu man du ma militant parce que du aw ma aw ma carte membre. mu ngi noonu kenn du aw ma loo xam ne dinañ ma mën a ràññee ci biir Pastef lu dul samay kàddu yu may jot a génne. Mm. léegi nag euh, Ousmane Sonko premier ministre ñi tax ma gënoon intéressé ci ay mbiram ba pare di def ci moom vidéo vraiment di ko défendre mooy que dafa génn en tant que jeune ñun. ñu gis muy taxawu jeunesse bi ba pare di indi ay discours yoo xam ne nii boo doonee jeune am ambition ba pare muus waaye c'est ça da nga ciy da nga ciy da ciy da nga gis sa bopp loolu nag moo ma à ce que ba pare teg si lu baax loolu yoon bu baax boobu mu jëloon am ñu taxaw ne akab dee kii yoon bi duñ ko bàyyi mu jàll mm. man nag jullit laa te jomm naa ëllëg yowmal xiyaam ma dem ba jàkkaarloog suma borom mm. mu laaj ma nan nga nekkoon Sénégal ma ne ko dama daan wax ñu may dégg mayoon ma kàddu mu ne ma kàddu googu loo ci doon wax nag yaa ngi doon wax dëgg ou pas doom mën naa jàkkaarloog moom en tant que julit di tourner autour du pot mhm. bëgg naa ko wax ba sama réew soxlaaye taxaw naa waxal sama réew nag avant may leeral carrément Ousmane Sonko man premièrement Sénégal laa njëkk a défendre mosuma woon d'accord ci booy ñuy rey mosuma woon d'accord ci injustice man mii rek damay dund injustice ci sport bi mhm. mais dama koy fàtte jublu ci réew mi Sénégal en général mhm. mu ngi noonu nag bu dul dara sama benn frère boo xam ne moom doon livreel di ko ñaan yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana moom ci manifestation yi lañ ko lañ ko faatee waaye c'est ça bu bu sax mm. mu ngi noonu kooku maa moom ay xarit lañ woon bokkoon jikko et tout mm-hmm. après boobu sax gënoon na ma booster à ce que ma à bu ma doon def benn damay gën a def fukk ci combat bi pour mm-hmm. uniquement jële fi ñi nga xam ne ñoo fi ne ni bokk na ci ñi ñu euh, boom ci eh, li fi jotoon na xew ñuy ñaan yàlla suñ boroom nag mu bañ fee amati ba faw euh, avant Macky Sall di dem defoon na ab euh, mbir moo xamante ne nii amnistie lépp lu fi jotoon xew yéen yi nga xam ne nii ay euh, victime ngeen laa ko mën a wax parce que sa xarit la mhm. donc euh, mën naa wax ni ci sa famille la bokk mhm. léegi yéen bi mbir yooyu amee ñu ni dañuy faxas lépp loo xam ne nii lu fi jotoon am la ban réaction ngeen amoon jamono jooju waa dañ ci am métit métit métit bu kawee kawe kawe vraiment nag laasana moom hmm. innocent la woon kooku boo ko fekkoon Kër Mbaye Fall vraiment da naan hmm, beneen nit la quand même macha allah man dama ko doon gis sama bopp. Mm-hmm. liggéey la xamoon daf doon livrer càq-càq la yoroon di livrer ba yàlla may ko li mu yore oto léegi jour boobu noonu. Mm-hmm. manifestation yi kii mu génn di dem pour déplacer auto bi ci la problème yooyu ci la ko ci fekkee quoi et tout ba mu génn àdduna nga gis ne ni ki innocent la. Mm-hmm. mu dee si noonu zéro après ñu amnistier affaire yi. maanaam li kat dalee 2021 si je ne me trompe ba jamono ji ba 2024 waaye c'est ça ñu fa def ci ñaawteef lépp dañ koy effacer. en tant que xarit sa xol du ci neex. mais yàlla moom mooy juge bu mag a mag bi loolu mën nañ ko effacer mais suñu borom du ko effacer te dina leeral lépp incha allah mu ngi noonu ah, te di ko ñaanal peut-être bëgg ngeen gouvernement bu bees bi mu am ngeen ci xalaat pour nu ngeen di def ba ñu mën a euh, xam au moins ñi nii nii ñi ñi ñi rey ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo faatu waaw loolu bu amoon dañ ci dañ ci sant suñu borom dañ ci sant yàlla nag euh, vraiment nga def li ngay def ci ci ci ci ci ma ne maa tey sax mais xaw ma nag la moo leen ci poussé woon mhm. ci gone goo xam ne innocent la après ñu bàyyi noonu mu sedd mhm. neexul ci xol mhm. ngeen bokk famille wala soit mu doon sa xarit léegi ñoom buñ ci amee pexe nguur gu bees gi nañ ci def seen kéem kàttan bu ko defee lépp leer moo xam muy nervi yi man nervi yi laa mënul woon accepter sama àdduna man nervi yi dama leen doon xool sama xool bi mënu ma loon expliquer man maanaam man ñëpp laa yéene lu baax mais bu ma leen gisee no mais mënoo sax ex mënu ma la expliquer en tant que góor yàlla nga doon góor yàlla di entraîner ñu lay dundal ngay lekk ba suur jàkkaarloog sa moromu góor yàlla sa wala soit sa rakk jël jaasi di ko dóor wala du n'importe quoi wala di ko tirer bal loolu laa mënul woon accepter mën naa comprendre sax homme de tenue yi nga xam dañ leen joxoon ay ordre ñu nekk ci mais nervi nekk ci terrain bi yore ay jaasi di dóor sa rakk loolu loolu moom du ma ko baal kenn su ma sañoon moom nguur gi moom nañ ci jug quoi vraiment. ñu lijjanti la waaw Pa assan ak ni mu bëggee football intéressé wu ci euh, ñu gis ni dimanche passé Ousmane ko dafa woote euh, grand théâtre mu jaaral la nga bàyyi sa yite yeeg teg football baax yëpp daw wuy ji ko keroog est-ce que attente yi ngeen doon xaar ci moom. comme que ndaw yi la woo woon te yéen da ngeen da ngeen doon wax ni dañu bëgg ku ñu defaral suñu réew dañu bëgg jeunesse bi fexe ba ku nekk am ci loo jàpp keroog bi ngeen demee ngeen déglu seen euh, leader bi di euh, Ousmane Sonko li ngeen doon xaar ci moom est-ce que réellement gis ngeen ko. waaw man de vraiment gis naa ko mm. nag Sénégal moom. Mm. moom sa dañ koy euh, bu noppee dañ naan xool ko. <laughs> affaire yi ëpp na ko doole ba waxatul. boo waxee ñu ne xool ko dafa yàlla ma ngeen baal ma ci kàddu gi li muy wax dafa bari hmm. Sénégal noonu la demee te moom yàlla jàppale na ko moom wax na ko sax neen dafa blende moom li nit ñi di wax ak li nit ñi waxut moom li ko war mooy que ci njub ak jubal ci lay dox. Hmm. def li muy def gis nañ ay kàddu yoo xam ne kàddu motivation la nag man jàng naa ci. Hmm. wax na ci yonent bi royukaayam la wax na ci difficulté boo ci nekkee. bul di saalit. jàppal ne tôt ou tard da nga ciy génn boo nekkee ci yoonu dëgg lu metti metti metti après da ci am résultat bu positif yooyu yëpp jàng nañ ci mais Sénégal en général mooy ñi nga xam ne dañuy xalab jëmm ji maanaam duñ xool ci lu baax li nga xam ne mu ngi koy mu ngi koy wax waaye soit ñoom dañuy peut-être du ma ne wax na lu bon sax mais ñoom dañ koy créer ay mots yoo xam ne amul manipulation bi dafa bëri léegi mm-hmm. te wax na dëgg maanaam nit ki yore benn benn benn benn soit euh, benn ordinateur am wala yore benn presse am jeeg saay rek commencé wax ci lu ko neex ci nit koo xam ne dara wóoru la ci imaginer ngay traité nit ki de borom ñaari tur te dara warula ci nit koo xam ne kilifa la nga wax ko ñu bàyyi la noonu ngay taxawaalu keneen day ñëwaat waxaat lool mm. trop de liberté tue la liberté waaye c'est ça mu ngi noonu loolu nag ànd naa ci kàddu yum mu génne mm. malgré sénégalais yi am na ñoo xam ne euh, bokkuñu nuñ ko jëlee mm. mais man lu positif laa ci gis du caaga ne li ma ànd ak moom wala soit li ma ko sopp moo tax may kii bu ma gisoon loo xam ne tegul ci yoon man maa njëkk a génn wax nag li ma la wax sànq rek ci laay dox man ñaan naa yàlla ëllëg jàkkaarloog suma borom mu laaj ma lan nga doon wax Sénégal ma ne ko ci dëgg laa doon wax. Hmm. mu ngi noonu. d' accord léegi ay bu ñu sukkandikoo ci ay ñoom Mamadou Ibra Kane ak Yoro Dia. Hmm. nee na jeunesse bi daal ab one man show la ñu demoon di di di di seetaan rawatina nag nee nañ lan moo tax defu ko fa mu daan defee parce que foofu la ko baaxoo defee muy Kër Massar wala parcelle fii euh, ak APES. Hmm. tey mu woo leen Grand Théâtre est que ñoom li ñuy njort ni Sonko léegi jeunesse bi ñu ngi commencé di lâché wu loolu moom moo lâché wu mais ñoom ñoom public bi nekkoon foofu ba ne nee nañ sax yéen déception ngeen fa jëlee <laughs> yàlla ma yàlla jéggal maanaam ñoom hmm. ñoom li sa waay am moom lañ amul nga woote ñu wuy si la hmm. surtout jeunesse nga xam ne convaincre ko yombul noonu quoi nga convaincre ko ba foo ko woo mu wuy si la hmm. keroog dafa fees del hmm. fa fees del del del del hmm. te grand théâtre bi ñuy wax noonu naan ay affaire de one man show wala soit ay affaire de foofu pour wàllu euh, comédie wala grand théâtre lu ne am na fa hmm, euh, woote diine am na fa lu ne am na fa sa waay bu fa wootee dafa war a woote moo xam muy Kër Masar ak fu mu mënti woote l' essentiel jeunes woote wuyu si nañ ko te man ñoo ñu di wax noonu jàpp naa ne bu ñu woote woon quinze personnes duñu leen fekk si nit ki da ngay nangu lu yàlla dogal ci nit ki boo bëggee noppalu te actuellement yàlla dafa dogal ne ne jeunesse bi moom lañ àndal te di ñaan yàlla mu bañ ñoo décevoir te yàlla moom ñu décevoir ba ilaa allahumma amin mhm. euh, nee na nag du leen protéger yéen militants yeeg ndawu Pastef yeeg dégg la li mu wax sax ba wax euh, ak euh, ministre de la justice garde des sceaux vidéo bi mu ko envoyé woon par rapport ak suma jiwumul Alassane bu Sonko mhm. ba ñu jotoon ko ci tiye yéen bi ngeen déggee kàddu yooyu noonu certes sax xam naa ni waa Pastef moom ñu yaru lañ mhm. duñu peut-être ñu dépasser les bornes mais daal nee na du leen du kenn du def njombeem ñëw laqatu si ginnaawam man nag contrairement ak ñeneen ñi di tiit man bu ma ko déggee damaa kontaan mm. ndax man kenn mosumaa gis si réseaux sociaux may saaga mm. wala di wax ak nit ki loo xam ne dara waruma ci ba ci sport sport bi nga xam ne actuellement képp ki war information sportive mm. paasan lay bind li ma ko may maanaam bala ma dugal information dama koy seet seetaan ko ba mu wóor ma ma soog ko dugal. Mhm. kon man sama xel day dal foofu te man du ma encourager kuy saaga wala kuy sosal nit. Mhm. j'aime pas ça. Mhm. bëgguma ni ma bëggulee injustice noonu laa bañee loolu. kon nag kàddu yooyu dama koy rafetlu. booy sama sama mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci réseau yi ci plateforme yi. ñoom laay motiver à ce que ne leen. réseau yi dafa éphémère. waaw dafay jeex tak tak soit nga xëy génn àdduna wala nga am njaboot. ñu ñëw ne sa papa wala sa yaay moo doon def lii ci réseau yi mm-hmm. loolu nit war na koo jomm def boo xalaatee loolu rek am na yu bëri doo xool sax affaire de Ousmane Sonko wala soit ay affaire ak yooyu mm-hmm. da ngay xool sa àqulaay taalaay te xam ne ne ëllëg da nga war a yore njaboot mm-hmm. lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la mm-hmm. léegi par rapport ak li mu wax ci presse bi ba euh, ay Bougane Anta Babacar ñeneen ak ñeneen génn di ko tontu rawati nag bu Bougane bi moom moo gën a jur coow yow en tant que militant euh, naka nga jàngatee tontu Bougane bi ak euh, coow yu ci juddu wàccee ko waa ñoom am nañ ci droit nag mm. ñoom ay opposant lañ actuellement dañoo taxaw ngir war a opposer ak euh, premier ministre Ousmane Sonko léegi nag bu ñu gisee kàddu yoo xam ne jëmale na ko te ñoom ñu ci. bu leen neexee ñu ñu ñu réagir mais seen réaction na doon loo xam ne nii nañ ko nañ teg ay argument yu leer yoo xam ne sénégalais nañ xam ne ni ñii lañ wax tegu na ci temps mais man dama jàpp ne Ousmane Sonko la ma jot a wax fële gisuma ci dara dara loo xam ne lu négatif la wala affaire de maa ngi dégg sax ñu naan ay de menace presse ak yooyu noonu. li fi nguur gi paase wax wala li mu def presse bi li mu ko fi def ci année yi paase moo gën a métti fopp li Ousmane Sonko def Ousmane Sonko boo xoolee ba mu fi nekk ak léegi li mu bàyyi mu jàll sax dafa bëri ba ci ay militant am dañuy génn naan euh, li ngeen di bàyyi ñi ñi di ko wax dafa yomb trop bu ngeen ko fajul ñun ñooy génn faj ko kon kooku. mais loolu du noonu nag. ah kenn du fajal. noo man loolu ànduma si. nag justice ñoom ñoo doon casse justice ne justice day moo war a gérer lépp. Euh, équilibré mbir yi kon nag ànduma si ñuy génn ne dañuy fajal sa seen bopp bu ñoom bu ñu fajalee seen bopp ñeneen fajal seen bopp dëkk bi moom bazar moo fi am. Mm. léegi nag euh, ñoom am nañ droit génne seen i kàddu wax li ñu xalaat ci ci ci ci jëmm jooju di Ousmane Sonko. mais aussi nañ ko teg ci lu leer teg ko ci argument a xam ne duñ duñ sos wala soit duñ wax li nga xam ne moo leen neex pour mën a convaincre sénégalais yi sénégalais yi léegi vraiment fi kenn doofu fi ñëpp a xam nañ lu baax ak lu bon te actuellement jeunesse bi ñoom ñoo téye Sénégal ñoom seen i kàddu mooy Ousmane li mu wax ay jàng lañ ci jële man jàng laa ci jële sama moroom ak keneen ak keneen mm. léegi keneen ko ko gisee neneen nag après yow kas yow yow yow la quoi vraiment la quoi mm. <laughs> léegi woote na nag nee na ndaw ñu fi doon nii nañu préparé wu xam ne liy defar réew mi ak liy wàññi dundu geeg Sénégal gu ñoŋ peut-être ñu dem bay ji te ñëpp xam nañ ni léegi xale yi soowatuñu lool ci ci ci ci mbay mi da ngay gis nawet day jot sax mhm. euh, ñi nga xam ne ñoo doon jóge dëkk ba du ñuy faral di delluwaat dëkk ba mhm. sax pour di mën a dem bay léegi yéen en tant que jeune mhm. est-ce que loolu mu leen di woo pare ngeen pour fekk ko si man euh, semaine bi paase rek maa ngi dem conclure ak sama frère. Mm. ci benn benn benn tool bu am ci benn village bu ñu war a liggéey ci maak moom. man moom sincèrement pare naa pour jaayante ci te damay woo sama benn mbokku jeune na leen. dund gi balaa moo gën a mën a wàññeeku. il faut que ñun maanaam ñuy bay di dundee di bay bay exporter mais mënoo di importer ba pare bëgg mën naa ni gérer sa dund noo problème te te cher affaire de chair du ci am ak yooyu léegi il faut que ñu favoriser mbay mi. képp koo xam ne nii vraiment mbaa am nga ay tool mën nga delluwaat ci sab mbay. jéem cee góorgóorlu te xam ne ne vraiment euh, man li ma gis daal na xel quoi muy euh, ministre bi nga xam ne moo géré wàllu agriculture beeg yooyu nag bu dul dara muy génn di conscientiser jeunesse bi ba pare di dalal seen xel ne leen am na ay engrais yuy ñëw ñoom aussi bépp kàddu boo xam ne jot nañ ko génne nañ ko dëggal te xam ne ndaw yi aussi ñu ngi leen ci xaar man de xaw ma keneen mais man pare naa pour investir ci mbay mi. Mm. te incha allah dinaa ci dugg récemment maa ngi ci doon waxtaan ak sama frère bi. di wóob xam ne nii euh, yàlla may na la doole. te xam na ne vraiment réew ab mbay tamit da koy doxal ak pêche beeg yooyu du caagi ni affaire de business kese mais tamit nañ gën a favoriser mbay mi te dem liggéeyal réew mi di Sénégal. réew mi di Sénégal waxaat na itam ci set setal bi euh, gis nañ ni euh, fan yi ci ginnaaw defoon nañ ko mu réussir macha allah nee na nag bëgg na. mu nekk loo xamante ni xam sénégalais moom euh, moom sa wax na ko commencement la xam. Mhm, xamul àggale. Mhm, mhm, est-ce que yéen itam bàyyi ngeen xel bu baax a baax ci loolu parce que ñu ngi wax ni dañu bëgg a fexe ba mel suñu dëkk bi mel ni Rwanda. Euh, Rwanda Kigali su ma juumul mais ñoom itamit balaa ñuy euh, loolu di mën a nekk ba seen dëkk bi léegi macha allah. dañu teg ay mbir yoo xamante ne ni dégg naa sax bu bu fekkee euh, yooyu dafa war a am sax ku génnul ci dëkk bi dañ lay alamaan ak yi ñu mel est-ce que yéen pare ngeen itam sensibiliser waale seen yeneen moroom jeunesse si jeunes yi euh, pour ñu bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu woowu man ba élection yi jeexee tak après teg ci suma jumul deux semaines bokk naa si ñu njëkk génn joxe message bu mel noonu pour ñu tàmbali ay set setal rigueur la laaj nag waaye c'est ça mm. boo amul euh, comme rigueur bi nga wax noonu doo ko mën a continuer wa aussi jeunesse bi faaw ñu am motivation pour de pour les débuts mm. ñu am ay moti ñu leen am ñu leen di motiver di leen pousser mm. à ce que ñuy génn wax leen ne li ngeen di defar nii pour yéen la ak seen njaboot yi nga xam ne ñoo war a ñëw ëllëg mu ngi noonu ku ne créé association yi ñu daan def temps booy dañ ko war a tàmbaliwaat chaque euh, première dimanche ci mois bi booy yëpp jeunesse jeunesse bi jigéen ñi góor ñi génn set setal ba pare def ay reboisement mm-hmm. jiwal ay garab waaye saa nag boo xoolee Dakar léegi béton ak ciment kase la mm-hmm. garab boo tax nit ñi war a mën a nooyi mm-hmm. amatuñ ko mais tamit jeunesse dañ leen war a conscientiser loolu dañ ko war a boole ci wàllu njàng bi xaw ma nag peut-être mu ngi ci jamono ji ba léegi di leen wax ne ne garab dafay mën a tax ngay mën a nooy nooyi gu baax mu ngi noonee il faut ngeen koy favoriser même ñu koy foowee sax da baax nga yore sa benn mbuus sa benn sachet boo xam ne da nga koy couvrir def ci engrais def ci yooyu noonu dugal ci sa garab di ko teel a jàngal bu ko defee ñu màggaale ak moom aussi xamal leen lan mooy set ak la la la mën a jural. Mm. loolu aussi dafa laaj communication bu yaatoo yaatu yaatu yaatu. Mm, surtout surtout ndax euh, tamit mënuloo di set setal ba noppi après ngeen continuer waat. boo balee tey bu subaa kenn naan kaasu kafeem sànni naan sa mbuusu ndox sànni loolu tamit dafa laaj ab euh, waxtaan bu nga xamante ne ni population bi ngeen ni ñaax si ni mel. parce que Dakar moom ak fépp sax ci région yi da ngay gis mbalit yi ni muy. Mm, euh, tax a traîner ci mbedd yi. non amaan yi nga doon wax noonu. su ma mm. sañoon gars yi dañ ciy dañ ciy taxaw. Mm-hmm. ñuy def nag Sénégal dafa ragal amaan ku jël xaalisam rek rek la ragal. waaw xaalis waaye waaye c'est ça mu ngi noonu ñun noonu lañ mel buñ commencé woon amaan yi. def ci fulla ak fayda peut-être mm-hmm. mën naa am changement quoi au début. Mm-hmm. aussi gars yi ñu conscientiser leen bañ xam ne ne cet set moo mën a aussi dafa bokk ci loo xam ne dafay dafay euh, taaral image yu Sénégal Rwanda actuellement ku ne bëgg na faa dem visiter. Mm. nag euh, li ñuy wax ci moom. Rwanda bokk na ci capital yi gën a set en Afrique. ñoom daal liñ ko fajee mooy. waaye dañuy amaan ñoom c'est ça seen euh, Kagame moom xamul yu mm-hmm. mm-hmm. parfois nguur dafay laaj aussi nga nga a nga xaw a strict waaye c'est ça. mu ngi noonu nag euh, ñun moom neexal bi bu rek dañuy jàpp ne yow soit da nga ñàkk fayda jaar jàll lay tout waaye c'est ça mu ngi noonu il faut que <laughs> ñu def ay amende aussi mm-hmm. waaw duñu du ñu jeexal te waxuñu ci euh, jour bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye président bi ak Sonko génnee prison musique boobu noonu ñu doon wax ne moom la ñuy bàkkee yonent bi ba muy delluwaat Makka yow yaa fi indi woon problème bi ba gars yi di wax ni naan kii dafa yawaate ah lii mu def nii pour lan la. Hmm. léegi yow ba loolu jàllee gars yi woowuñu la di la wax dara. man de 2021 ba léegi maa <laughs> ñu ngi may menacé 2021 ba léegi ñu ngi may menacé man sama sama papa ak sama yaay wër na yàlla dañoo demoon ba xam nga maak ñoom sama papa dañoo rusante ba duñ siggi xoolante mais si période yooyu noonu maa ngi moom beneen affaire la dañ ñëw wax ak moom ah moom dafa mel ni moom bokkul woon waaw mais yow dem na ba tuubal nañ ko <laughs> moom dem nañ ba tuubal ko mu ngi noonu dañ daan wax mu naan ma kii dafa yaru dafa yaru mais après dem na ba comprendre mm. réalité li sénégalais yi di di dund mm, quoi mm, yi dem nañ ba tuubal ko mais man mm-hmm. loolu ba ma koy def maanaam yéene laa ko doon defee dama jéeg saa rek dégg euh, dijje bi taal ko man aussi ma ànd ci mm-hmm. def vidéo commencé waaye mu dugal ko TikTok yi affaire bi viral mm-hmm. naar yeeg ñëpp di ko reprendre ku ne foog na ne aw na fu ne de waaye c'est ça foog na ne koor gi la ñuy la ñuy célébrer <laughs> mooy leen nag euh, vraiment na Ousmane Sonko moom lañ doon accueillir nag dafa yàggoon ci prison bi jeunesse bi yëpp doon doon ko xaar mu noonu mu génn nag Ousmane Sonko bañ ko téyee ba ni muy génnee wallaahi lazim mhm. man daanu ma li ka trois heures du matin à chaque fois laay tëdd. ndax la damay jug di julli soit di ko ñaanal. wala ma toog maanaam day mel ni que day am lu manqué ci man man dama daan julli xiyaamu leeli mooy dim dix derniers jours yi nga xam ne mooy nekk ci koor gi mooy pour pour mën a capter layatul xatrib mhm. dama daan dem di julli xiyaamu leeli su ma ñaanalee su may waajur damay fàtte sama bopp. moom laa doon ñaanal yàlla génne ko fi mu nekk may ko réussir te mosuma ko wax fenn nag il fallait que nag ma génne ko pour wax gaa yi mm. ne leen euh, maanaam bëgg fu ne lay fu ne fu ne fu ne fu ne lay jóge quoi te mm. nit ki li tax nga bëgg ko dafay wane li tax nga bëgg ko te moom daf ko wan daf ñu ko wan ñun dañoo yàgg a rêvé loolu ñun jeunesse bi ñi nga xam ne dañoo conscient mm. mu ngi noonu dama ko dama demoon ba forom dafa nekkoon sama sama néeg ndeysaan su ma demee bay tëdd xool ko rek dootu dootuma mënatee nelaw. mu ngi noonu sama yaram day taw baay mënu ma koon expliquer nag ma waa yooyu noonu <laughs> bëggoon naa ñu génn ci problème yooyu noonu rek après ñu ñu ñu génn ci problème yooyu fal leen ñu mën a defar defar suñu réew mais dama doon wax naan jour bi ñu koy njëkk a fale jour boobu moom tout est permis lépp mooy yoroon mënoon naa koo maye. mais sant yàlla ba yàlla def na mu génn ba mu génnee. Mhm. tayu ma ko. Mhm. sama drapeau laa longoo rek génn. dem affaire baa ngi nii jour bii la woon mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu. mais c'était quelque chose boo xam ne nii. Mhm. dem naa ba toog di ko nettaliwaat sant mm. yàlla quand même. Mm. vraiment di ñaan yàlla. Mm. oyofal leen yéen bi. ñu gën di ñu jàppale ñun jeunesse sénégalais bi nga xam ne jàpp nañ si si si si si si si combat bi. quoi dëgg la dëgg la jërëjëf ay ca dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo euh, ak ñi la doon suivre boom walaay ndeysaan. <laughs> mu ngi noonu maa jigéen d'abord dama lay remercier ci invitation bi. vraiment euh, bàyyi. influenceurs yu bëri ñëw choisir ma ne ma vraiment bëgg nañu waxtaan ci sama jëmm mais aussi waxtaan ci réew mi Sénégal waxtaan ci sport bi nga xam ne dama ko bëgg tellement mm. di ñaan yàlla aussi sunu ministre des sports bu bees bi yàlla oyofal ko yéen bi mm. mais aussi mm. mu gestu bu baax a baax yeneen discipline yi du football bi mm-hmm. nag football rek du du bi am na ay am na karaté nag Louis François Mendy mm-hmm. moom dafa war a dem ci olympique bi mooy athlète bi nga xam ne mooy daw 110 mètres ci jeux olympiques yi war a am fële ca France mais ay jamono jotul woon subvention hmm. ñu gestu ñooñu ak euh, ñiy def scrim aussi mu bàyyi leen xel bu baax a baax di la remercier di remercier sénégalais ak sama abonné yi nga xam ne ñu ngi may suivre mhm. ba ci ñi may saaga ak ñi taf sama foro di wax mooy loolu maa ngi gis lépp te commentaire damay jël sama temps lire commentaire yëpp xool yi ci positif mhm. ma jéem see jàng amélioré wu mhm. yi négatif nag ma bàyyi leen ak sunu borom quoi man moom sant yàlla quand même loolu dama belente ci loolu jërëjëf Pa Assane euh, Gueye lébu gi ah borom walaay di sama famille ak <laughs> waa Tëngéej ak Kër Mbay Fall aussi nga xam ne falaa laa ñoom dañ may safu bu baax a baax mais communauté lébu bi yëpp yëpp aussi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax leen wax na ne seen doom ngi ñaanal leen ko bu baax a baax. incha allahu rabbi lépp dina baax euh, Pa Assane Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ci yitte yi nga bàyyi ñëw wuy suñu fii ci solution TV di jaajëfal tam képp koo xam ne rek yaa ngi doon euh, bàyyi xel bi lay émission di wax ne nag beneen yoon ak yeneen i ndaanaan remercier Abdou Top mi nekkoon ci xarala gi doon ma dimbali Serigne Fallou Gumbala Abdoulaye Diallo. jox leen dig daje beneen yoon incha allah voilà.